après mu demee wuy ji. oui oui. Euh, naa ne aller bi gisuma ko mais dem na wuy ji satisfaction laa ci am. Mhm. ci raisonnement bi ci wax ji ci wax te dafa naa ne loolu moo am solo. Mhm. et je ne suis pas le seul à muy dellu boobu laa gis le images. Mhm. sur la corniche. Euh, je vois que euh, seen oto mi ngi ci kanam y a du monde autour. bu la. bu doon man damay dem dellu sar sama kër. waaw. vous savez si bi moo je vous dire naa dugg si droit bi léegi tout de suite. dégg naa nag ñu bëri li ci waxoon. Mhm. j'ai bien entendu mais je vous dis ce qui doit être le dugg sa oto. ngeen nekk cinq di dox si biir Dakar wala di dem. Mhm. génnu leen yéen a tëj seen ay vitres amul benn loi bu la ko interdire cette liberté de circulation. Mhm. d'aller et nga dugg sa oto génn ci décapotable bi di def di parade sa mhm. c'est interdit il faut nga am déclaration d'abord mi nga def la préfecture si euh, caravane la ça devient quelque chose boo xam c'est interdit d'accord il faut que nit ñu xam ko man mii su ma génnoon léegi jël mhm. sama ñeenti oto bind ci la majorité silencieuse ànd gor yi jaar biir Sandaga pin pin broche euh, euh, bloqué circulation mais les policiers vont m'arrêter. waaw mhm. nee ma mais ban autorisation la. et surtout cette période. surtout cette période. Mhm. Mhm. donc y en a pas eu. dafa pare audience am di ñibbi on bloque la circulation les gens sont là ñu nekkoon ci gannaaw sa xalaat nga leen ñu war a dem hôpital wala ñu dem feneen ñu nekkoon ci xam nga voie wu corniche bi nag mel. donc c'est pourquoi les la loi et la loi elle est dure elle est elle est comme ça si vous prenez les articles 92 b 100 euh, ci code pénal bi. lépp luy boucher circulation bi te amoo autorisation la police a le droit dindi ko. Mhm. mais boo gisee image c'est parce que man euh, ba ma gisee affaire bi à un moment donné gisuma ko. mais exfiltré parce que beaucoup de. beaucoup de beaucoup de membres de la société civile dañu ñaawlu nee nañ bi ñu ko extirpé ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy oto. gis nga Sénégal man dama bëggee ñuy wax lu xam ni franchement mooy mooy mooy doxal réew. Mhm. yàlla def na man du question droit sax laay wax yàlla def na euh, comme na ko Youssou ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. waaw boo demee yenn dëkk yëpp nga xool ce qui se passe là-bas dans des vraies démocraties. Mm. parce que Sénégal y a projet de démocratie. def na je le connais sur certaines choses ku mu am ndey ku mu amul ndey su ngeen mën nañu ci dellu si mais je vous dis vous êtes en France on considère que vous avez fait une infraction la police vient encercler le véhicule nga tëju ci biir ne est-ce que coow day am. une infraction vient euh, euh, de défense li ñu def c'est tout fait normal. je vous dis ils casseront la vitre pour jël la génne la fa. d'accord. kooku na ma benn juriste répondre sur ça. donc ce qu'ils ont fait c'est normal. maintenant maintenant euh, casser la vitre moi j'ai pas vu de violence sur sa personne c'était pour diñ ko wax mu répondre leen ne on ne bougera d'ici gars jël ko wàccee ko. dugal ko ci oto bu koy yóbbu këram dem seen yoon ne ko di ñibbi la ñu yóbbu la di mais mënoon na am violence mais j'ai pas vu de violence foofu mm accès à lui parce que moom ubbi woon bunt bi il y pas euh, de vitre mais moom nee na laaj na leen mm-hmm. sécurité voilà exactement non non moom laaj na pour euh, laaj na leen est-ce que je suis en état d'arrestation je suis dans mes droits euh, wax na ak mais ñoom dañ ko ne carrément jëme après waaw bu ñu tëjee cassé vitre bi ba ba ba ñu ubbi porte bi bu ñu ko waxee génnal mu bañ moi je vous dis une chose très simple supporter baax na mhm. contre la personne qui est là nous sommes tous contre un troisième mandat mhm. mais ni nga ko teg ci droit man dama la ne man mi je suis aussi chef de parti mhm. nous sommes dans une coalition à su ma bëggee jaay le produit mën naa génn fii def benn fii mu def buzz gars yi ñëw gis gars yi génnee ay pancarte ñu ne ah lii lan la ñu ko mhm. xamuloon xam ko mhm. mais j'aurais violé la loi si je n'avais pas fait une déclaration préalable que damay caravane mhm. or booy parader je vous boo génnee ci bi rek y a problème or vous voyez depuis quelques jours euh, pas de loi belleuse pas eu de déclaration préalable à la préfecture am na beneen aussi defe naa ne boo xam ne booru booru kalo Colobane quand comme ça le président Abdou Diouf dañu wax une campagne électorale permanente qui commence un an avant. Mm va continuer. donc moi comme na ko euh, doyen Assane waxee rek je semble ce rapport de défiance là nañu calmé wu tuuti. Mhm. on a tout le temps pour faire face à président Macky dans son troisième mandat boo xam ne basé wu ko ci benn texte.